dale na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci administration bu Sénégal am na si ñenn si ñoom ñoo xam ne jamono ji dañoo mer ba maara détaillé ni ki démb am na lu toll ci fukk ak ñaar ci ministère yoo xam ne liggéeykat ya janoon nañu ak tas ko du xabaar ñoom taxawal nañu ab collectif ndax ñoom li nga xam ne moo leen métti maanaam mooy parparloo gi am nga xam ne moom la ñu yokkee salaire yi ndax liggéeykat yi nekk ci bi ñoom dañoo gis ne ñi nga xam na ñooy jàngalekat yi ak waa santé ak yokk nañ seeni salaire moo tax ñoom administration bi liggéeykat yi ñu jàpp ne ñoom tima war nañoo yokk seeni salaire te ñoom dañoo gis ne dañu leen bedd ci mbir mi waaye nag ñoom dànkaafu nañu nee nañu bu ñu yokkul seeni salaire danañu indi gàllankoor ci li nga xam ne mooy liggéey bi yéen kaay gi di Le Quotidien xëy xibaara naan ñu daral yi bërëb yi xam ne moom la ñuy jaayee xara ñi nga xam ne ñooy jëndkat yi dem nañu waaye waxaale baa ngi mel ni tulleeg male waxaale maara détaal yi ni mu yokkee dafa jéggi dayoo te ñi nga xam ñooy kilifa yi ñoom dañoo mel ne mënuñu dara ci mbir mi yéene kaay gi du l'observateur xëy duñu xibaar naan ñu kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko fan yi ñu génn yëkkati na ko wax ne Macky Sall dafa bañ askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Casamance rawatina ñi nga xam ne ñooy joolaa yi kàddu yooyu nag Aminata Touré ñaawlu na ko bu baax a baax nee na Ousmane Sonko kàddu yi mu yëkkati kàddu yi ku irresponsable xam ne moom la ñu teg ci kaw Ousmane mu rafetul loole mu jaaduwul la moom Aïda Mbodj dafa gis na ñi nga xam ne ñoo nekk ci pouvoir bi lenn lu nekk ñoo ngi ko yàq Ousmane Sonko yéene kaay gi de Le Quotidien forum justiciable ñoom Babacar Ba ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax kaddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko ci yéene kaay gi de Le Mandat Souleymane Ndiaye S2D moom tim naqarlu na bu baax a baax kaddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko nee na Ousmane Sonko ginnaaw xam ne amutul inspiration amutul crédibilité jamono ji nag dafa bëgg salfaañi réew mi waaye nag loolee mënuñu ko ko nangul ndax dafa bëgg a nga xam ne mooy ethnie moom Souleymane Sonko lajjee ci désordre bi nga xam ne bëggoon na koo andi ci réew mi woo ndaw ñi ci fitna ndaw ñu lànk jamono ji nag dafa bëgg a xaajale ñi nga xam ne ñooy xeet yi ndax li nga xam ne wax na ko ne Macky Sall bëggul joolaa yi bëggul askanu Casamance loolee méngoowul ak am te lii nag bokk na ci li nga xam ne mën naa salfaañe sunu stabilité réewa ba tey ci yéen kaay gi de la mandat moom Souleymane Ndiaye nee na ci Sénégal ba ñu dalee politique ba léegi musuñoo gis homme politique bu mel ni Ousmane Sonko ndax yéekatu fitna la yéen kaay gi de enquête ñu duñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi seen suppléant yi yi ñooy dem ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la waaye nag dina nekk assemblée boo xam ne dina bëri ñoo xam ne kenn du leen xam ndax ñi nga xam ne ñoo nekk ay suppléant ci coalition Yewwi Askan Wi kenn xamule na yéen a kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Jibril Gningue di expert électoral moom nag nee na assemblée bi ñu dëg ma la dina nekk assemblée boo xam ne gàllankoor yi dina bëri yéen a kaay gi xëy di ñu xibaar naan ñu Cheikh Abdou Bara ko déglu ca xóota la critique yéen a kaay nee na soo muytulee tey mën nañu ko bàyyi mu ñibbi këram su ko defee mu mën a tëbaskee ci ay mbokkam yéen a gi ki démb ci conseil des bi njiitu réew mi di président Macky Sall na bu baax a ki nga xam ne mooy Moustapha Niass ci liggéey bi nga xam ne def na ko assemblée nationale yéen a kaay gi de la Quotidien nee na yi nga xam ne ñoom la ñu joxar bi baraamu tuuma nañoo yàq lycée Ousmane Sembène ba ca Yofa mandat nañ leen dépôt suba ci àjjuma ji lañ leen di atte yéen a kaay gi de l'Observateur xëy duñu xibaar naan ñu dafa am benn jigéen ñu mën koo dajaleel koo xam ne dafa nekk dans le coma waaye nag bi gars yi dajalee ba ci dix raabi ba moomee daf ko daal di détourné gars yi teg nañu ko loxo mandat nañu ko dépôt suba la koy atte moom raabi ba mi xam ne moo organisé woon dajaleem xaalis boobee waaye daal ba mu matee dix millions daf ko daal di détourné te ki xam ne moom lañ ko doon dajalee la kookee dafa feebar ba maara détaillé ba nekk ci hôpital cité woo maanaam dans le la nekk yéene kaay gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar mbir mu doy waar a doy moo xam ne ma nga xewee ci diwaanu Ngaabu ga ca wetu Touba ndax nee nañu dafa am benn bu tudd sëriñ moo Moduloo Ngaabu Junior moom moomee nag dafa am benn taalibeem bu nekk Espagne taalibeem boobe nag jabaram dafa nekkoon Dakar mu fexe nag ba convaincre taalibeem bi ba taalibeem bi nangoo jabaram ñëw moom sëriñ bi mu daal koy héberger waaye nag nee nañu ba ko héberger dafa sëggoon ci moom benn bis la ko soxna Moodu Moodu bi daal di filmer bi mu ko filmer nag moom soxna si dafa jël vidéo bi am ku ko yónnee ki ko yónnee nag moo doon chantage sëriñ Moduloo Ngaabu xaritam bi nekk Espagne ba jabaram ji jóge Dakar ñëw ngaabu daal di fay loger mu daal di koy héberger waaye nag mujj gi daal journal bi nee na sëriñ bi saa su wëlbati ko rek nekk ci ndaw si waaye nag ki nga xam ne nag moo doon chantage moom teg nañu ko loxo ki nga xam ne nag mooy Modou Modou bi moom tim nee na dina porte plainte sëriñ Modou Lo ngaabu junior yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na génération Fouta foofee tamit lu waar moo fa xewa ndax Olivier xam moo nekkoon manager bu moom nag dañu ko doon chantage ku tudd Mortala Seck a moom xaalis bu bare bare mbir mi nag ni mu deme Oliver Prin mi moo jël ay photo yoo xam ne daf na ci dungu yónnee ko Mortala Seck Mortala moom nag da ko doon chantage jot naa jël ci moom xaalis moom Mortala Seck moome nag Oliver Prin mi nga xam ne moo nekkoon manager bu Génération Foot jot na koo yóbbu woon sax fi nga xam ne mooy Dubaay waaye nag ñi nga xam ne ñooy avocat yi Oliver Prin ñoom nee nañu seen client bi ba muy yónnee photo yooyee boobee dafa màndi woon maanaam àndut ak sagoma Mortala Seck mi doon chantage moom nag nee nañu nañ ko tëj lu toll si ñaari ati kaso yéene kaay gi délibération nee na mi nekk ci internet bi jamono ji ma ngi ci ab garde à vue ndax Baye Assane Mesere dafa waxoon na dafa am benn jàngalekatu alquran boo xam ne moo ko woowoon na ko man damay tëddee samay élèves waaye nag mënu ma ci dara Baye Assane Mesere moom nag yoon daf ko woolu ngir mu andi ay leeral ci kàddu yooyu mu yëkkatee waaye na bës nee ñu moom la si jublu woon ndax amul yenn firnde yum ci mën a indi yéene kaay gi di sunu lamb guy gi nee na Eumeu Sène la soxla buñ ko ko joxee dina ko duma dina ko daan moom guy gi nee na tamit nañ ko jox Gris Bordeaux ngir mu mën koo yóbbu retraite